ci ren mi ngi nekk cent cent un 801 millions cent 611 euh, mille cent 181 daaw ñu ngi amoon 1 milliard cent ci prévision loolu li ko waral yomb naa wax mooy mille 2019 dafa am xaalis buñ jot boo xamante ni biñ koy jot nañ ko yéex a jot ca catu at bala lañ ko jot kon mënuñ ko woon utiliser jël ko yóbbu ko 2020 xaalis boobu nag war na mat lu mat trois 300 millions yoo xam ne dañ ko reporté biñ ko reporté moo warloon mu nekk un milliard vingt millions 1 milliard 20 millions boobu bu ñu génnee xaalis bi nga xamante ni reporté woon nañ ko te exécuté ko xaalis dafay jeex moo tax ren ñu prévoir ne nañu koy yemale fi nga xamante ni mooy li fi ne ak li ñu yaakaar ne moom la ñuy war a jot buñ ko xaymaa nag mooy tax mu nekk cent 801 million loolu nag du xaalis foofu rek la war a yem ndax am na ay fonds yeneen yu war a ñëw lu mel ne li nga xamante ni mooy pakaseen pakaseen boobu xaalis bi ñu jot waroon bi ñu jotoon uh, daaw jéeg xamoon nañ ko bi ñu jotoon daaw xam nañ ko mais bi ñu jot déwén xamaguñ ko 2021 bi moo tax mënuñ ko cee dugal ndax daaw avant at mi jeex xam nañ ko moo tax ñu dugaloon ko mais ren nag mënuñ ko dugal parce que xamaguñ ko beneen bi ci des fonds de dotation ak fonds de concours xamaguñu li nga xam moom lañuy ñuy jot kon mënuñ koo introduire kon retard yooyu moo tax mu mu mu feeñ ci nag bu ñu dikkee xaalis yooyu bu dikkee bu ñu jotee notification nañu woowaat conseil bi ne leen yi ñuy waroon a dugal te jotuñu ci woon information jot nañ ci mi ngi nii bu conseil mën koo voté ñu mën ko dugal ci loolu nag li jëm ci liggéey bi ren Euh, natt nañ ko pour l' année 2020 bokk l' année 2020 bi euh, wati nañ budget bi pour l' année 2021 fas nañu yéen incha allah ci domaine yëpp lu mel ne santé comme ni ubbee école euh, ni ñu ubbee poste de santé maam Seydou bu Ndiaye démb noonu lañu ñu war a ubbee bu njaayeen mais aussi danañ jënd bloc opératoire ak yi muy jënd imagerie médicale muy rajo ak mammographie ak yeneen yu ci mën a ànd loolu suñ ko jëndee centre de santé bi danañ mën a wax ministre bi nag pour mu mën ko def EPS de niveau noonu nag lañ bëgg a jàppale yeneen structure de santé comme ni ñu ko defee ci santé dem na ko ci éducation réhabilité écoles yi doole laat leen pour ñu gën def ay production de qualité te loolu feeñ na ndax examen yi jongante yi élèves yi Mbàkke yi département de Mbàkke ci région bi yëpp ñoo ci raw ndax wax nañ soxna Xari Penda sur CFE sur 127 élèves 126 yëpp dañu at kon am nañ fa 99 virgule 5 pour cent de réussite te loolu li ko war rek mooy performance ndax équipé nañu eh, école yi informatisé nañ leen wutal leen jumtukaay réseau grave en capacité 10 000 copies ak ak ak 10 euh, 000 copies en 8 minutes ak yi muy àndal yëpp pour que jàngalekat yi nekk dans d'excellentes conditions noonu nag lañ ci tegee li nga xamante ni mooy marché Mbacké bi réhabilité nañ phase bu njëkk bi ñu ngi war a construire nag deuxième phase bi war tabax en hauteur mobiliser nañ xaalis bi daje na donc li ci des rek mooy lancer marché bi ko defee léegi koo gañe gañe ko liggéey ko su pare ñu liggéey beneen ba ci quatre phases yi Mbacké bi digg bi dana moderne mais quatre blocs yi ko yëpp danañ ko liggéey à l'étage bu ko defee mën a organiser wat marchand yi mu gën a participer nag attractivité dëkk looloo tax ci biir attractivité bi ñu fexe ba quartier yëpp am ndox mën a am courant donc mën a accessible nit ñi am terrain tabax ko dëkk bi gën a yokk donc mooy li nga xam daal projeté nañ ko te it jàppale ndaw ñi surtout ndaw ñi am borom kër donc pour que proche euh, euh, commission bi nga xamante ni mooy commission de l'urbanisme liggéey bi mu entreprendre maanaam objectif am rek mooy accompagner population yi pour ñu amul ñu seen kër yi amul kayit am kayit ñi seen kayit baaxul ñu defar leen mais aussi jàppale ndaw ñi nga xamante ni amuñu kër te doon ay borom kër ñoom ñu mën a am accès donc ci parcelle yi